nee na cool yi nag mu ngi commencé déborder moom ay bagaasam la jël jëlee Fuuta ñëw ba Dakar pour régler problème bi waaye kan la koy régler madame Faye moo ko wóolu pour wax ak moom ne ko mu dem wax ak Viviane parce que moom jàmm ci lay dox loolu boo amee ndax Viviane day indi géwélam warul indi géwélam mbokk yi ñu dem seeti couple boobu tey nan lay demee <laughs> affaire baa ngi bëgg a séeréer nag waaw ah. ah, ah, sama turandoo na def. maa ngi dëkk ba. ñu ngi si jàmm. alhamdulilah. baarikàllaa fay. ndilaa man daal jaaxle moo tax ma woo la. Mhm. ndax xam nga sama diggante ak population bi mhm. tànk jàmm rekk laay dox. Mhm. ak li nga xamante ni moom moo war loolu laay def sama diggante ak sama boroom kër. ak jigéen ñi nga xam ni ñoo nekk fii. léegi nag semaine bi yëpp mm-hmm. madame wàdd dafa may attaqué mm-hmm. di ma fekk fii ci sama buntu kër mm-hmm. di ma wax lu nekk di defanteeg man ba di ma song xeex te xam nga ni man ak moom moos bu doon xeex normal te du ci lii ma nekk kon kenn waxatu ko waaye day sama tànta di sama yaay te muy muy nit koo xamante ni dama koo bëgg jox ko cër mais sonal na ma fan yi torop te bëgguma yoon dox sama diggante ak moom moo tax ma oolu la pour nga xool noo ma siy jàppalee ndax sànq ba tey de solu naa sax pour bëgg a génn nii mais mënuma génn ndax mi ngi ci buntu pale bi di ma xaar te bëgguma sécurité bi laal ko ndax ñoom karaa ak ñooñu ñoom sécurité bi man damay génn sans sécurité mm-hmm. bëgguma benn sécurité laal ko mm-hmm. ma bëgg nga doxal ma ci tànk jàmm mm-hmm. fay pend biroom waagaan nuy naa la sant naa la sama njëkkee bu baax bi Seri Makki Amadou Abdou Suwaadu Malick Diagara damaa wax nit bu santee yàlla ak yenante bi mhm. dafa war a sant ñaari waajuram dëgg la Maram Faye doo sonn mhm. première dame doo torax mhm. danga am sa ñaan waajur nga am sa ñaan alaji Macky Sall nga am sa ñaan sa réew Sénégal ñëpp ñu ngi lay ñaanal ku yow si biir senegal dalay lay ñaanal bul ragal bul tiit parce que yaay dox lu baax yaa ngi def lu baax yaa ngi wax lu baax boole woo si wax boole woo si mën a mën a boore woo si tiitara yàlla kay may na la ñëpp xam na ne yàlla may na la ku nekk jiitu première dame tous les sénégalais kay am na li ko yàlla may waaye noo nga wàccee sa bopp boole woo si wax boole woo si tiitaro xeboo kenn yeeboo kenn yow kay Mariam Faye Sall xamul la la xeex xamul na la xuloo jàmm rek lañ la xamal kër diina yi ak kër aada yi yëpp ñu ngi lay ñaanal yaa ngi nekk seen doom yaa ngi nekk seen jarbaan yaa ngi dox lu baax di def lu baax dëgg la loolu Sénégal la la xamee. Mhm. loolu Sénégal la la jàppee. Mhm. nit nag lu mu war a def. Mhm. il faut xel jiitu. dëgg la Mayram Faye dangaa jiital sa xel. Mayram fay dangaa yaru. Mayram fay dangaa dal. Mayram fay dangaa bugg sa réew. bugg alxaji Macky di ko jàppale. dox lu baax di def lu baax. yow yaa yor puso. ak weñ di di defar Sénégal. foo toog defar Sénégal. loolu loolu mooy sama rôle. loolu dong moo ma ñor. ndax man jigéen laa comme moom. ma di ko comprendre nag. ci mhm. benn côté. Mhm. ndax euh, day nday. Mhm. ma di ko comprendre. mais nag dañ ne lu ëpp tuuru. te fi mu nekk nii mi ngi bëgg a ëpp. te bëgguma sécurité wala dara di dal ci kawam. looloo tax ma woolo la tey jii. ma bëgg ñu génn ndax mi ngi ci buntu palais bi. lu nekk mu koy waxanteeg man. ñu dem ma jël sama saak ñu ànd nga waxal ma moom. Mm-hmm. ndax tamit su ma xëyee damaa am sama yitte yu ma war a dox. Mm-hmm. am jaamu yàlla yoo xamante ne damaa war a séq ak ñoom teraanga. waa ci loolu laa nekk waa kon nañ dem waa. fay pend birom waagaan. fii xaar man du tàyyi du dew xeexu tubaab du jeex xuloo tubaab du jeex. Marème Faye nee naa leen man moom tànk Karim Wade duggul ci palais bi war a Karim Wade ñëwul Sénégal bi lay duma tàyyi ba ñu ma ba dem dik man dinaa dugg ci kaso bi eh. moƴƴo hajja kumbo simbo moƴƴo amadou buuɗi suwadu mali jagaraf moƴƴo dem buuɗi moƴƴo seydi buuɗi moƴƴo kum buuɗi moƴƴo tibi sall moƴƴo ballel sall moƴƴo fuuta fof keen wiima fayi pelle biron wagano ɓooya wonde jabbo wone jabbo ko an ɓuuri an woni jabbo taƴo o biyeji huppana rewɓe ñande jaaha makka juuroyade rasulbil haqqi sallllahu taala alayhi wa sallam fondation salude sénégal kala pinɗo e leydi he yi fondation salude sénégal damani ine tersi ñande otojine tersi yerde ene jaaha ene mballa miskineɓe go pareña mayma waa da nga indi sa géwél da nga indi min laa wax da nga indi sa géwél dama ne yow laa waxal gënoo ma xam gënoo ma leen may dara comme que yaay géwalam ñëwal ñu defante dama ne géwal dee dee ci xare waa kon kaa ñu defante na nga jugee laa wax yow boo jugee Matam ma jugee Versailles dama ne man du ma ay eh, waxuma ak yow da ngay man tamit première dame laa. du man rek mu neex. Ah, moo def lu baax dama ne bu nekkee Macky Amadou Macky man dama bëgg nga xam ne lan. Souadou Malick Diagara président lay di Sénégal ma ne Viviane Barboline Viviane Justine Justine Marcel de Benoît Benoît de Patrick Patrick de Henri Henri ma ne may ma laa wax may ma tuuti bu nekkee Biram Waagaan man Barboline de Marcel Marcel de Justine Justine de Pierre Pierre de Étienne Étienne de Barboline bu leen ma tojal bu leen ma tojal ma ne ma ne bu leen ma tojal sa gewel juddu laa wax bu fekkee ne li ñuy wax ne gewel day dee ci xare kay dee. waaw puusal kon tey dina la ko jaral kaay ñu xeex laa wax. man boo melee nii ni nga mel rafetul ni nga mel rafetul ni nga mel nii da nga ne may war man du ma yow yow doo war a taxaw. du ma ne yow amoo ko indi ku man xuloo ma ak yow damay defante laa wax tegal sa tegal sa saat boo nekkee Macky bu la ko jaralee man tamit am da nga am ay mbokk ma mooy sama baay Pax Mole mooy sama yaay Etienne mooy sama maam ni nga amee géwél naa amee géwél sama géwél dina ñëw. man tamit maa ngi jàng bible boo jàngee kaat mun ma jàpp waaw man ma may xeex man tamit dama ne première temps man Sénégal yëpp kay xeexal Sénégal yëpp kay xeexal première temps man ngeen di sot bàyyi bàyyi barboli barboli barboli barboli